Amadou Ba directeur adjoint école du partie bu PASTEF ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Elisabeth. di la dalal tey jii euh, doore kook ci euh, li nga xam ne mooy mbënd mi am jamono ji ci mim réew Pastef tey ñoom ci seen waxtaan gu mujj ak taskatu xibaar yi ñoo ngi xam le ne 750 milliards yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati di ko wax ci lii di question des inondations dara amu ci 48 milliards donc lañ ci jot a mobiliser. Euh, fu ñu teg li ñu wax noonu. waaw jërëjëf euh, Elisabeth ba ma ko mayee rek euh, ma jaale ñëpp ñi ñàkk seen bakkan si si mbënd mi. Mhm. ensuite l' ensemble des sinistrés di ñun sunu sunu sunu sunu soutien. Mhm. te xam ne tiis boobu tiis bu métti la. te li leen daal mérité wu ñu ko teg benn doomu aadama mérité wu mais déjà xam nga rek boo amee incompétent yooyu jiite lii moom day arrivé souvent si laaj bi ñu ma laaj nga ne Pastef nee na li ñu chiffre yi ñu joxe dama lay rappeler rek gis nga ñun chiffre yi ñu joxe. Mhm. amul benn chiffre bu ñu créé. dama lay rappeler en 2012 bi Macky Sall ne dafay président Macky Sall dafay xeex mbënd mi. Mhm. dafa teg benn plan décennal de gestion de inondations plan boobu dafa am dafa am ñetti pàcc. Mhm. pàcc bu njëkk bi dafa moom moo ko tuddee plan d' urgence. 2012 deuxième plan bi mu tuddee ko plan a court terme 2014 2015 2016. Mm -hmm. troisième plan bi mooy plan boo xam et long terme 2017 2018 mhm. mu ne dañ koy ne da koy milliards. Euh, premier plan d'urgence bi la la milliards. deuxième plan de deuxième phase bi mooy monté mu dugal fa trois cent soixante six milliards troisième phase mu dugal fa li fa des lépp boo ko te li si gën a doy waar mooy ñoom seen biir ñoom ñoo ne sur le plan de l' waxuma xaalis bi liñ liñ a def. Mm-hmm. c' est vingt six pour cent ñoom ñoo ko wax Elisabeth. Mm-hmm. Euh, je dis l' un plan de dix ans nga ñëw huit ans nga ne c' est exécuté seulement vingt six pour cent loolu c' est une catastrophe maintenant ñaareelu mooy. Mm-hmm. lii ëpp si liggéey bi waa ONAS ñoo ko def te ONAS boobu nga dafa dépendre si ministère de l'eau et de l'assainissement mhm. moom moo def benn bilan du programme décennal de gestion des inondations et perspectives moom liggéey mooy tout ce qui drainage des propos via l'APADA ñoom ñoo génne seen chef ne plan bu njëkk bi dugal nañ si trente deux milliards deux cent cinquante six millions te dama la si yokkal sax ñoom nee nañ. Mhm. si xaalis si xaalis boobu trente milliards deux cent vingt cinq millions yi loolu mooy pour investissement yi ñu ne un milliard neuf cent quatre vingt et un bi mooy entretien bi xam nga chiffre bi la jox ni inventé moo ko moo tax may bi boo paree mun naa la ko jox yow soo mhm. Mhm. boo tënkee loolu boo tënkee loolu yëpp muy quarante huit millions. ma fàttali na ne parallèlement si programme décennal bii ñoom ñuy wax dafa am projet programme de gestion des eaux pluviales mhm. projet boobu bu ñu koy lancé en 2012 c'était seulement pour Pikine ak Guédiawaye mais après lañ si boole Saint-Louis ak Diamniadio projet boobu enveloppe bi c'est 60 milliards état bi moo si dugal benn pàcc bu ndaw waa banque mondiale waa fonds environnement de développement ak fonds nordique de développement 60 milliards boobu lañ jël une partie ñu dugal ko biir premier plan d'urgence. Mhm. léegi man dama naan gérer c'est prévoir rek xam nga am nga tey jii maa ngi dégg ñoom ñaan mbënd bi daf leen bett. Mhm. dañ yëguñu ko. Euh, euh, damay damay fàttali rek gis nga euh, waa APR yi gis nga dafa am cadre national boo xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm si lépp jëm si mbënd mi. ñoom dañoo tëndiroon benn benn conférence day sax en visioconférence lañ ko tëndiroon en mhm. en avril wax ne fii mbënd dina fi am na ku nekk nañ préparé nañ préparé boobu ils l'ont tenu le 30 avril 2020 man aussi damay a wax ci gars yi mhm. en France dama koy lire il faut pré positionner des motopompes dans les zones inondables mooy nga préparer. d'accord kon yow daal bu ma la déggee ngay wax mooy ñoom waroon nañu waajal seen bopp ndax xam ne lii dina am tey. mais eh, Elisabeth le cadre national des services climatologie bi ANACIM dirigé moo ko waxoon document boobu aussi ñun dañ yor di ko xam ne ñoom ñoom kay. ñu préparé tey l' opposition bi def ko débat gannaaw Pastef euh, kii di PDS ñoom nee nañ sax nañu saytu euh, lii di gestion ministre euh, Macky yi nga xam ne jot nañoo liggéey ci lépp lu jëm ci mbënd mi. assemblée nationale sax d' ailleurs daal dina convoqué benn réunion spéciale mardi bu suba ngir nag ñu saytu mbir moomule ndax am ngeen yaakaar ci boobule commission. waaw man nag wax dëgg wax dëgg yàlla rek amuñu benn yaakaar si boobu commission. parce que olof Ndiaye da léeg-léeg danaan ku dóomin rey sa maam boo gisee ñuul da daw. Ah. d'ailleurs xam nga sax nee nañ PDS euh, PASTEF njiite réew su bopp moom moo njëkk taxaw ne nañ ko defar rapport sept cent cinquante milliards yi xam nga si gën mooy njiite réew si boppam. Mhm. biñ naan moo l'homme le plus informé du Sénégal moom si boppam xamul ñaata lañ si dugal. max ko ma max ku mel ni man ku mel ni yow askan bi ñu déglu léegi suñ ma waxee commission parlementaire damay fàttali rek bi ñu amee affaire quatre vingt quatorze milliards yi. parce que parce que porte plainte si le procureur Bachir Gueye moom mu ngi nelaw ba léegi ñu bàyyi ko fi dem porte plainte c'est le juge d'instruction ñu toog waa assemblée ñoom Cheikh Seck ñoom Djibril a ak Jéema Ndiaye Ba dañuy def seen commission d'enquête parlementaire def seen commission tapale commission tapale boobu pour setal Mamour Diallo ensuite ils ont article règlement intérieur assemblée parce que boo defee commission waroo si wax dara da nga war a ñëw ba en plénière wax ko mhm. xam nga loolu rek ñooñu séeréer ñu suñu menee ñooñu ñoom ñooy ñëwaat def commission enquête pour affaire yi amuma si benn jaakaar mhm. te amul dara lañ say jural. <laughs> ñu desandi assemblée googu nga xam ne maître Djibril moom nee na moom it dina saisir assemblée bi ci benn euh, proposition de loi bi nga xam ne euh, dootuñu fal képp ki nga xam ne euh, génnee nañ ko ci liste électorale yi waaye it ci jëm ci élection ak it ki nga xam ne moom jàpp nañ ne dafa am dafa def forfaiture donc jëm ci article cent cinquante bu code pénal te bu waxee li ni mel dafa mel ni kii di député Sonko di seen leader moom lañu ñu visé. seen xalaat ci mbir mi. non mais man maître Djiby War man dama koy dama koy classé fi may classé ñoom Pawlish. lan la da ngeen da ngeen fulla <laughs> da ngeen fulla loolu li mu wax koy classé comme fi may classé ñoom Pawlish ak ñoom it euh, je ne sais pas. fan la koy dugal fan nga ko teg noonu fan nga ko teg. non mais c'est un farceur xam nga pour lan ñaari farceur la maître Djiby War ak euh, Mouhamed Diagne synergie républicaine ñoo fi commencé wax seen waxi dof yooyu naan. day def benn proposition de loi boo xam ne bépp fonctionnaire bu ñu rajee mhm. da ngay perdre ce droit ce, ce droit civique mm -hmm. il faut que ñu rappeler ñun Sénégal duñu ay dof bi si njëkk mooy loi kenn du voté ngir xirtal benn nit may xamal ne maître Djibril War am maître Mouhamed Diagne boobu que dafa am dañu reer mbir sanction administrative mhm. radiation bokk la sanction juridique mooy condamnation pénale Ousmane Sonko benn décret bu Macky Sall bind le 26 août 2016 moom moo ko radié tey ji moom daf leen traumatisé. yow loolu nga jàpp yow jàpp nga ne daal moom. Euh, Sonko dafa traumatisé. ñu nekk ci góor Sonko saa yu xësee xëy wax benn rek nga ngeen baal ma si kàddu bi mais lii métti waru wax yu la. xam nga tey jii pour laal ma ne métti bi waar dama koy def fi may dugal Pawlish. Mm. dañ mos a laaj Pawlish ne ko Pawlish yow noo def ba am xaalis. mu ne waxi dof waxi dof donc ma eggali pour être un peu beaucoup plus gis nga et puis laa na la loi dafa rétroactive tey jii ko buñ ko taj amaana bu ko ba assemblée bu ko ba assemblée wax de dootu musa mais il bu mu bañ a taal dëkk bi kon amu leen ci benn njàqare daal ci mbir non non non non ñun c'est des farceurs Sénégal des farceurs ñoo on a une démocratie mûre et boo xam ne rationale lii soo ma mayee rek ma ne maître Djibril War mhm. titre maître il n'est pas avocat turam nekk su tableau de l'ordre des avocats du Sénégal dafay dafay sàcc ma il faut il faut Sénégal lañ gis tey ay faux docteur Samba bu APR ay faux billets de banque bu Bougazali hmm. ay faux décret bu Yakham Mbaye génnoon ak faux avocat bu maître Djibril mais il est temps ñu auditer diplôme bu APR yi loolu ngeen jàpp daal loolu lañ jàpp hmm. d'accord euh, monsieur Ba ñu wax tamit ci dialogue politique bi euh, mhm. tey jii am na ay ponk yi nga xam ne ci waxtaan wi jotu leen ci déggoo ba tax na yéen a ngi ciy xaar euh, kii di njiitu réew mi mu arbitré lan moo ci seen xalaat yéen waa Pastef waaw réew mi kii balaa may tontu rek gis nga ñun aussi souvent gars yi dañuy wax yeneen si dialogue national bi souvent nit ñi dañuy réere mbir mhm. dialogue national bokkul ak dialogue politique. xam nga léeg-léeg saa yu élection élection pare surtout élection yi nga xam ne dañu leer ne tegul dañ ko trafiqué gars dañu dajale di discuter sur le processus électoral. Mhm. foofu noonu le le 31 mai 2019 benn arrêté ministériel 14 moo installé cadre chargé de dialogue politique. bi nga xam dafa am si biir benn benn commission cellulaire boobu la général ñaa dirigé. Mhm. bi ñu demee ba 3 Euh, c'est le président Macky Sall bind benn décret 2019 1106 moom moo moom mooy créé fixe règle comité de pilotage du dialogue national. Mm-hmm. foofu noonu maintenant lañ lañ jël euh, cadre chargé du dialogue politique bi dugal si biir dialogue national moom mu nekk moom moo mu nekk comité commission politique bi. léegi foofu on a discuté si point yu bëri. am na point yoo xam ne bon pour l' instant dañ ñu fa. Mhm. mooy nga xam ne tey jii dañ ne bu maire bi wala président de départemental nekkati fi ñu ngi koy est ce que dañ koy nommé wala dañu demaat beneen élection. Mhm. deuxième bi mooy le fait que ngay cumuler fonction nekk njiitu parti politique ak njiiti réew mi léeg-léeg dina indi ay problème di nga wax wax boo xam ne da nga ko jubal si njiiti réew mi gars yi attaqué naan yow da nga wax ak président de la République or dans la constitution dans son président de la République on a dit c'est une institution. d'accord beneen bi mooy beneen bi maintenant euh, bi ci topp mooy indépendance kii euh, saytu kii yor après élection yi donc dama rappelle que en 2012 Abdoulaye Wade avait réussi ça. Mhm. jox ko Cheikh Gueye mu gérer élection yi. mais ñëpp gis nañu Macky Sall bi ñu ko waxee mu avant élection 2019 ñu ne ko teggil Aly Ngouille Ndiaye indi fi keneen dafa ne du ma ko def du ma ko def du ma ko def ñëpp xamoon nañu pour lan mooy dootu def léegi. foofu noonu aussi on va continuer de discuter maintenant nee nga dañ ko jox président bi xam nga président bi dafa tàmm bu ko joxee as mbir rek da si jël lu ko neex. waa léegi ban solo la am sax bu dee da ngeen war a amal commission wala sax dialogue politique ba pare euh, liñ ci war a dogal ci yenn yi njiitu réew mee koy def. waa lool loolu mooy problème bi parce que xam nga rek euh, président de la république Macky Sall bi ñu génnee assise dañ ko jox mu ne j'ai signé avec euh, j'ai bi ko Amadou Moutandio joxe euh, commission nationale de réforme des institutions mu ne day jël li ko arrangé. li ça se répète actuellement. man c'est la raison pour laquelle boo xoolee dans si biir dialogue euh, politique bi. Mhm. ñoom dañ ne il faut ñu xuus ba si biir. problème bi il faut ñu discuter si statut de l'opposition. Mhm. mettre en place benn cadre permanent de suivi du processus électoral ñu bañ rek chaque fois ñu nekk benn genre ci euh, dara arrêté. ensuite installation wu institutionnalisation dialogue dialogue ba nga xam ne du du président mooy jël li ko neex saa yu amee problème. d'accord nga tudd ko muy statut de l' du chef de l' euh, tey jii mu indi coow sax mën nañoo ne diviser na opposition bi te dara xewagul euh, lan nga foog ne débat bi ndax am na solo. non non mais débat bi il faut ñu ñu def la différence entre. le chef de l'opposition et le statut de l'opposition ni euh, Sénégal Sénégal dafa nekk démocratie boo xam ne bu mur la te bii mooy sunu cinquième constitution may fàttali sunu constitution bu njëkk c'est en 1959 mm-hmm. bi stop 1960 troisième constitution bi c'est 1963 bi Senghor coup d'état et en 2001 c'est pour la première fois en 2001 c'est article 58 le le président Abdoulaye Wade le statut de l'opposition foofu noonu il n'avait même pas waxul chef de l'opposition le statut de et il a parlé d'opposition parlementaire moom dafa jàppoon ne ki ki ëpp ay député ci assemblée mooy nekk opposition parlementaire mais foofu dafa am benn problème entre PF ak AFP ndaxte hmm. su ma juumul AFP dafa amoon onze députés PS am dix députés mais suñ compté voix député AFP hmm. donc loolu pose benn problème ba finalement antuwul bi ñu constitution en foofu la président Macky Sall ñëwee ñëwee dugal modifier un peu article cinquante huit de la constitution d' sax nee am na benn loi bu ñu war boo xam ne moom mooy définir le statut ainsi jox droit jox droit les l' opposition mhm. mu génnee opposition parlementaire dugal fa chef de l' opposition ñun waa Pastef dañ ne ñun chef de l' opposition ça ne nous intéresse pas maintenant puisque ce que dañ ko bindal si constitution bi mhm. dañ ko bindal si constitution article cinquante huit te si wax ñun ñun suñ si ne nii dañ jàpp ne le statut c'est bon maintenant ban droit la ñuy jox opposition parce que maintenant le fait majoritaire assemblée dafa am benn majorité boo xam ne c'est mécanique ñu ñëw dañ koy voté duñ ko duñ ko sànni gis nañu yoo xam ay député Macky Sall lañ c'est normal je je rappelle am na député yoo xam ne liste nationale la ñu nekk rek duñ dem demee seen seen gox ku si mel ne Abdou Mbow 12e dana liste Thiès mënu gañ sa quartier Thiès am day toog liste nationale rek. attaque la. <laughs> attaque non dama koy tontu parce que dama koy tontu c'est pourquoi dafa toog benn émission ne Ousmane Sonko maay chef am assemblée maa ko jox voix. amee ñu ñu ne léegi nañ jël jox yan droit la ñuy jox opposition bi à l'assemblée ñu ne leen droit bi njëkk mooy na leen permettre ñu fixe ordre du parce que bu nekk nar a voté à la majorité ñoom du ñu mës a fixé ordre du jour ñu ne la dañuy jox droit boobu deuxième droit bi ñun nañ may minorité assemblée boobu opposition bi ñu diriger des commissions d' enquête parlementaire troisième droit bi ñu ne maintenant ah, des commissions la commission des lois wala finance dañ ko jox dañ ko jox kii kii opposition bi mm-hmm. ensuite ñu ne maintenant bu ñuy poser ay question sur gouvernement bi boo xoolee dañuy jox ay minutes naan euh, chaque député am na trois minutes finalement boo xoolee quatre-vingt-dix pour cent day jox parti au ne des questions aussi sérieuses boo xam ne ça concerne le gouvernement le Sénégal nañ ko def cinquante cinquante pour cent cinquante pour cent on droit yooyu loolu moo am solo mais pas jël kenn jox ko ay deux milliards jox ko benn statut mais loolu ça ne nous intéresse pas ñu dañ bëgg Sénégal nekk Sénégal un pays de droit boo xam ne au moins assemblée dina benn compte boo xam ne mën nañ am avec cette minorité parlementaire. Mhm. Amadou Ba directeur adjoint bu l' école de parti PASTEF ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, merci beaucoup euh, waa waa waa Rewmi FM seen auditeurs yi. Mhm. et merci à toi aussi.